ne ubbi nañu pour euh, candidat bu nekk mën a jël fiche ñu bëri dem nañu ba ba ñu xayma leen ba plus de deux cent deux cent soixante ou deux cent soixante trois bon loolu rëyoon na bon ñu ne euh, que am na intéret peut-être que ñu ñu bëri bëgg nañu nekk candidat à la candidature wante fi euh, fu ñu nekk nii ubbi nañu. pour euh, ku nekk bugg nekk candidat nga déposer trente millions foofu peut-être même euh, dix suñu matee dix candidats ñoo déposé donc boo xayma deux cent soixante dix à l'arrivée pour le moment bon euh, day jaaxal quand nit ñi mais mën nañ ko expliquer c'est pas par c'est pas par hasard hein dire que Sénégal poli suñu politique moo demee noonu suñu nee am nañu plus de trois cent candidats trois cent partis politiques ça veut dire que sénégalais yi xam nañ ni que euh, nga nekk politicien nga nekk société civile nga nekk cadre nga nekk euh, quelque ki nga xam ne yow am nga aspiration jiite Sénégal loolu dafa rëy ci sénégalais yi ku nekk bëgg na nekk njiit et loolu c'est pas seulement les partis ah ñu ñu ñuy tuddee tey ji président président président wala monsieur le ministre <laughs> nit ñi dañu bëgg titre et je pense que loolu culturellement moo nekk ci ñun. ku ku nekk bu gën a wone départ bi mais arrivé bi mooy jafe par par exemple euh, euh, soo gisee c'est peut-être les les majors ñooy commencer déposer ñi nga xam ne ñii ràññ nañu leen ci politique ràññ nañu leen ci élection présidentielle ñooñu ñoo commencer déposer ah muy PDS muy Idrissa Seck euh, <coughs> Aminata Touré en tout cas c'est les politiques. ñoo njëkk dem déposer seen 30 millions c'est pas par hasard parce que ñoom am nañu expérience politique am nañu expérience électorale et aussi am na lu ñu denc et pour l'essentiel ñoom ñëpp ils ont fait partie des gouvernements moom jaaxal na donc xaalis bu ñu déposé 30 millions yi ça veut dire que au moins am na lu ñu jot a épargner am na lu ñu mën a def les levées de fonds ñooñu dinañ ci génn ki nga xam ne am nga jaar-jaar Euh, jaar nga ci nguur gi wala am nga entreprise ñooñu xëy na dinañu déposer les trente millions mais yaakaar naa ñu bëri loolu lañ doon wax sànq ci financement des partis politiques c'est am parti dafa yomb mën ngeen nekk cinq dix ngeen toog def seen statut règlement intérieur des ministres de l'intérieur ñu jox leen seen récépissé loolu dafa yomb mais loolu du parti seen déclaration donc il faut que nit ñi xam ne que euh, loolu du parti c'est pas seulement que am nga récépissé rek mooy mooy yow chef de parti mooy benn mais ñaareel bi élection présidentielle mais c'est pas c'est pas une histoire de euh, bëgg naa <coughs> mais ñëpp bëgg nañu nekk président comme Macky Sall de mais Macky Sall jaar-jaaram moo koy yóbbu foofu mais ki nga xam ne sa parti amul benn jaar-jaar nga yeewu benn suba nga ne dama bëgg nekk président de la république jiite Sénégal jiite Afrique jiite àdduna bi mais du yomb ci yow parce que nit ñi amuñu confiance yow pour jox la trente millions comme caution. Hmm. gis nga y a chef de parti la suñu bëggoon mobiliser un million dañuy am problème ah. mais les autres pour am dix millions c'est un problème les autres pour avoir vingt millions c'est un problème. donc les trente million pour moi euh, baar baar bu kawe la pour ñu bëri pour ñu nga mobiliser trente millions tey jii ci benn parti politique du du yomb à part les grands partis ñi nga xam ne mës nañu bokk ci gouvernement wala ki nga xam ne chef d'entreprise la wala lu ñu gis les les grands fonctionnaires internationaux donc il y un problème là de de d'égalité Euh, entre les chef de chef de parti loolu moo waral en tout cas ñi nga xam ne seen partie récépissé code la ñu am amuñu expérience électorale yaakaaru ñu dem ba ci conseil constitutionnel parenage bi sax ñu bari ñu ngi rocceeku.